salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet ni ñu ko baaxoo di defee rek ak TV point com tey ñu ak yéen stade Iba Mar Diop tey nag ni ngeen ko gisee Fata production wala si deux drapeaux lay nekk poids léger 600 000 poids lourd 2 millions gis nañ fi nag ay champion yu mag waaw yu ñëw tey wuy si kon dañuy àndandoo rek dugg si biir xool tëgg xool xool xool fecc xool wéy xam mbëri ñu interview mbëri ngeen gis leen waaw Ah, i nga a komo garmene ñak premier tirage xaye o ɓaato gar axin compétir axina rek i njom moom comme ke layang rek chaque jour njom naaga yo i njale lakas quoi xu refna teen métier jego fo njom neeke o refanga teen koy nangi reta maafrel oxu maafrata nde refiro mbir quoi kaaga yo jega yaakaar daal xan o goɗ no drapeau le mi kay njom nu retma kay kam jega yaakaar mi jegun est ce refe kaaga sax na moƴo maafa xam yeen saay i kam fooga e njom nu retma rek wala xu genotuma i bonne chance bok i jaajëf merci a maxey simnang mais raf nanga baax waaw i nga o a gar mene ɓaato compétir a xina rek ah. mais mais i nga o a gar ɓaato compétir a xina quoi waaw waaw comme dem refu métier in moom à tout moment a rek i moom rew o kene fop wa tang kene maxey meen mafrel koɓ ala gara Dakar quoi ay foga no sélection chef de l'état fe wala non ren retim chef de l'état ko ah. wa dara bonne chance bo ok merci beaucoup tagasi mankain way me na jam wa inga ko mo kar rek ma ba ko ba a kar ba to compétir akina e na njom na ga yo njom fa ken dono wonu wa njom mom ma fa ma fe yo mais compétition fe tenu pour un sens quoi har ba ko le na ga njom na fe la ga ro kameda ro ci amin jeng ndam ken so me da ro kumule ka me na na kumu leka me inoro na ko fanse ke me me genona wa dara kam la kam refoon deɓandong oxa na kam soowa baf quoi pour de ngeɗanaam rek bonne chance boog wiin we ngeƴangonga lool mba jam a re'u rek i jam fo mayu reɗ'u kam jegu problème blessure rek roog a fi'atanaam wargal wax deg wodaam moom i alors kon xaye ref première journée of wala i non xan a ref troisième journée kay maaf rem Fatick ne yen me demi finale ɓaata num tuxid neeke xar waago len no njom xaye njom pare jangin rek xeɗa roog rek yasam jangin na jam param pour jangin waaw jomne mede mbires a ah, medade jege problème mosam mawre jom nan neke jangin kaga jegiram benn problème ok merci à toi jar dalo ziar bu wóor ñu gis ke nga ñàkk demi finale tey nga ñëwaat pour compétir waaw da dama ñëw pour fo rek a la ñàkk naa demi finale tey dama ñëw pour dem finale rek dama yàlla may ma jël looy wax waa Fass ñi lay taxaw Fass dama yokk ñaan rek nga xam ne laa quoi damay dem ma la waaw lamb waaw garaaw entraînement la rek ak récupération bu day rek waaw. waaw bonne chance. waaw merci. waaw merci naa baax mais daal na nga si mën a baax. a nañ wii nañ jàng waa Dakar de. waaw gaano de mais ko bale rek. i nda baataam gara ye quoi. nam sek fe ko bale koy. sek fe wax dëgg wax dëgg sant rooga baax moom vraiment wax dëgg. wax dëgg moom tane am tey bin wina tane am te moom vraiment ma gid ma te a rooga baax moom vraiment. bu maa ko leen njom na xaye. njom ne ah. rek ñamaat

daan na ko waaw Reug Reug Daouda Diagne Daouda Diagne moo yore ngembul weex li Reug Reug moo yore ngembul xonq li Reug Reug ngeen jàkkaarloo noonu waaw boo seetloo si si taan ak nga ne Reug Reug moo ëpp waaw Reug Reug wala daaw jurub waaw daaw jurub la gën a xam wala la amatri gën a xam Reug Reug Daouda jurub daa nga koy jéem a sol waaw Reug Reug Reug Reug Daouda Diagne waaw ba léegi rek waaw waaw combat boobu waaw daan na ko Reug Reug Daouda Diagne Reug Reug Daouda Diagne jël na tànk ba Daouda jël na tànk ba Reug Reug daan na ko Reug Reug daan na Daouda Diagne Nicolas Kotiox Mercedes Nicolas Kotiox Mercedes Mercedes daan na Nicolas Kotiox Mercedes daan Nicolas. comme d'habitude rek Moussa Ndiaye waaw Moussa Ndiaye ngeen di seen noonu moo leen féete càmmoñ mooy rek waaw di leen xamal ne tirage yi ñu ngi daw comme vous le Beaucoup de jeunes sont donc à la quête du pactole qu'a mis Fata Production. Un pactole de 3 millions, mais qui sera scindé ou bien qui, qui sera divisé en deux catégories. Oui. Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye takk na ko waaw taxawal bi Moussa Ndiaye takk na ko daan na ko Moussa Ndiaye daan na ko waaw ni ngeen ko xamee rek moom tamit bokk ci favori yi ni ngeen ko xamee par exemple da ah, daam favori près de 34 mbër yi nga xamante ni a avant ñuy bind kenn ñoom ñoom la ñuy njëkk a bind. tirage yaa daw ba léegi Caaka Faye ngeen di seen noonu moo leen féetee càmmoñ boo seetloo si tay moo xaw a gën a diis Caaka Faye parce que lii entraînement la rek da may compétition da ngay am coffre mais boo toogee di xaar combat day métti au moins fii di mën a foraatu wëccat mën na ay défense yu sew. waaw Ndiaye Tine takk ko mu ngi a forcé Ndiaye Tine na ko nombo Ndiaye Tine wër na ko nombo yëkkati waaw yëkkati ba si kaw daan si suuf Ndiaye daan na ko doole doole waaye Thiaka Faye ngeen di gis noonu moom tamit waaw Thiaka Faye ki ngay bëreel jox ko cër rek tey champion yi mag yi ñu lim waaw Thiaka daan na ko Thiaka Faye plaqué na ko daan na ko. Moussa Ndiaye waaw ba léegi rek ci tirage yi ni ngeen ko gisee Moussa Ndiaye ngeen gis noonu ñu ngi jàppante waaw instant calcul waaw arbitre baa ngi wax ak ñoom leen féete càmmoñ Ndiaye Tine moo leen féete ndeyjoor waaw boo seetloo nag si si taa nag mën na ne tey Caaka Faye moo a Caaka Faye mu ngi koy jëm plaqué Ndiaye Tine bañ na Caaka Faye Caaka Faye Ndiaye Tine Ndiaye Tine takk na ko Caaka Faye Ndiaye Tine Ndiaye Tine takk na ko Caaka Faye ngi rasu Caaka Faye Caaka Faye Ndiaye Tine Caaka Faye filé na ko daan na Caaka Faye Caaka Faye Ndiaye Tine lu arbitre wax lu arbitre wax Caaka Faye Ndiaye Tine waaw arbitre leen bëri un lutteur féroce qui a accumulé beaucoup de trophées Thiaka Faye Ndiaye Tine Thiaka ko daan ko Thiaka Faye daan na Ndiaye Tine benn ko Mohamed nee na la xale bi dafa mat a xel waaw galgal daanu nga daanu waaw daanu nga ba léegi rek ci poids léger ngeen gis noonu tirage bi di daw waaye ba léegi poids lourd Moussa Ndiaye fete na ko wet Moussa Ndiaye mboot Moussa Ndiaye daan na ko Moussa Ndiaye daan na ko arbitre nee na ñu bëriwaat Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye nga koy jéem a rin Moussa Ndiaye daw na wër na Moussa Ndiaye nga koy a wër saa yaa ngi bañ Moussa Ndiaye nga koy plaqué Moussa Ndiaye ko Moussa Ndiaye daan na ko Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye gañ sa moo ni waaw ni ma koy woowee moom mooy bëreek rek rek noonu ñu ngi ci ba léegi nii rek ñu ngi ci quart de na tànk bi Reug Reug jéem na yëkkati na ko Reug na ko daan na ko si suuf Reug Reug yëkkati na ko daan ko si Moussa Ndiaye moo leen féetee càmmoñ Moussa Ndiaye Benteñe Moussa Ndiaye nga sukk pour jéem a am tànk Moussa Ndiaye nga ko planqué waaye Benteñe wéyale na ko aw Reug Reug qualifié na demi-finale Benteñe nga koy sol Moussa Ndiaye Moussa nga koy jéem a xar Moussa Ndiaye ko Moussa Ndiaye xar na ko Moussa Ndiaye Benteñe Moussa Ndiaye ngi deewa jàll Moussa Ndiaye jël na tànk Benteñe Benteñe wéyale xale bi dafa mat a xel Moussa Ndiaye Benteñe Benteñe Moussa Ndiaye takk na ko daan na ko Moussa Ndiaye daan na ko l'expérience au détriment de la jeunesse bien sûr. Boy Thiam Diop Ousmane Sarr waaw Babacar John Ngoraña waaw Boy Thiam Diop Ousmane Sarr jël na toog jël ba war na ko waaw war ndombo mooy penalty wul waaw. Babacar John Gora Niang Babacar Gora Niang daan na ko Gora daan na ko mbot na ko mbot bi na waaw ba léegi rek demi-finale poids lourd Moussa Ndiaye Modou Thiam Moussa Ndiaye Modou Thiaw Moussa Ndiaye Modou Thiaw Moussa Ndiaye Modou Thiaw Moussa ko jël waaye Moussa bañ na Moussa Ndiaye Modou Thiaw Moussa Ndiaye モールちゃんタクナゴモールちゃうタクナゴモールちゃうタクナゴモールちゃうモールちゃうタクナゴモールちゃうモールちゃうモールちゃうモールちゃうこじまちゃばモールちゃうムサンジャイモールちゃうロングナコちゃばモールちゃうモールちゃうダンナムサンジャイモールちゃうダンナムサンジャイハレビダンナムサンジャイハレビダンナムサンジャイモールちゃうダンナムサンジャイ ñaari ñaari ñaari ndaanaan lañ Mohamed Thiaka Faye nga ko jéem a plaqué waaye Reug Reug ba ne Thiaka Faye Thiaka Faye Reug Reug Thiaka Faye Reug Reug lu xew dara amul Thiaka Faye dara amul arbitre nee na dara amul dara amul Thiaka Faye Reug Reug dara amul Thiaka Faye Reug Reug dara amul Thiaka Faye Reug Reug dara amul Thiaka Faye Reug Reug dara amul am na ngembo Thiaka Faye Reug Reug ñoo ngi ci saako yi Thiaka Faye boo demee si saako yi bu temps bi jeexee da ngay ñàkk Caaka fay Reug Reug Reug Reug am na ngembu lu muy def Caaka Faye a ngi arrière si saaku Reug Reug a ngi ko jëmee ko ci Caaka Faye a ngi arrière Caaka Faye Negu jëlal jëlal jëlal Modou Thiaw Reug rek Modou Thiaw Reug na ko daan na ko Reug daan na ko Reug Reug daan na Modou Thiaw waaw doole. waaw léegi ñu ngi si tapaandaw gi léegi làmb ji jeex na bëri nañ ko si jàmm ak salaam léegi ndax mën nañ wax ne am ngeen satisfaction si làmb ji. waaw am nañ satisfaction xam nga làmb moom boo wootee nit ñi wuy si la ah, ñëpp kontaan combat yi dem ba final amul benn contestation amul benn problème amul benn blessure. xam nga amul làmb ji amul benn coow gis nga ko benn yoon amul intervention service d'ordre amul dara lool boo ko ci làmb rek sant yàlla te loolu lañ ci bëggoon. kon ndax mën nañ leen xaarandi si yeneen bés fi fii ak saison bi di tëj. waaw waaw am dese nañ dese nañ parce que ñun en fait euh, suñu programme ëppoon na li bëri woon na normalement suñu programme c'était prévu mu démarrer au mois de décembre mais par rapport ak partenaires yi ñu waroon demee ci bés bi ñoo tardeel affaire yi. ba bii gis nga ko bii làmb une semaine la xam nga lamb boo préparé une semaine boo ci ameeli moom sant yàlla ngay def donc normalement comme koor gaa ngi intervenir ak coupe du monde bi on va essayer de voir fii fin de saison bi daal bëgg nañ ci amaat au moins entre benn wala ñaar ñaari journée un mot pour Lutte TV. Lutte TV bon xanaa kontaan ci ñoom kontaan ci ñoom et puis di leen dalal jàmm ci milieu bi parce que on a besoin de support yu mel nii. bon xëy na bu ñu gës gënee jokkoowaat gën a jokkoowaat ak ñun promoteurs yi ñu gën a waxtaanaat ñàkkul ay suggestion yoo xam ni euh, techniquement ak euh, sur le plan organisationnel xëy na mën nañ leen ci mën nañ ci waxtaan daal après waaw. merci jërëjëf merci beaucoup.